nataal fanweer ak juróom-ñeent ñaari nit ñi dañuy lakk ay cari garab car yooyu amuñu ay meññeef ndax dañoo wow ci xamm rekk la baax te yeesu daa bëgg suñu dund am ay meññeef ci dëgg mënuñoo lekk meññeef yi yéesu di wax meññeef yi muy wax yeneen lañu te mooy nga am mbëggeel am mbég te bëgg ñeneen ñi def lu baax te am dund bu sell te jub bu fekkee am nañu meññeef yooyu nit ñu ñu wër suñuy dëkkandoo dinañ gis ci ñun dund bu bees te dinañu ne xool leen góor bi walla jigéen bi bi mu tàmbalee topp borom bi yeesu ba tey dundam daa soppeeku ndaxte yéesu dafa ne ndax nga jot ci meññeef yi say reen dafa war a am suux ci moom loolu mooy tekki ne danga war a gëm ci moom te bàyyi kook sa xol bépp mu soppi ko su dul loolu dañuy doon ay car garab yu dee te benn bés car garab yooyu dinañ leen dog te leen ci safara te yéesu nee na kenn mënta doon xaritam mu fekkee yoroo ay meññeef yu baax ndax yow xaritu yeesu nga ban meññeef nga yor